que ñun duñ nax suñu bopp li ñu jàng njàngum ingénierie la ci ay données lañ koy teg kuñ wax ak boo ñuy nax xam nañ ko boo ñu naxul xam nañ ko bi ñu wëree fi ñu war a wër parce que Amath Diop dafa neex campagnal li tax mu neex mooy fépp koo dem rek am na lu mu fa def kooku dafa neex campagnal moo tax bi ñu waree 10 jours rek ma ne ko asan mbir mi jeex na tey jii dama bëggoon ci gàttal rek ñu partagé ak yéen li ñu naan programme parce que Amath Diop aussi euh, nekkul koo xam ne rek day omat nit ñi comme gumba dafa tëgg benn programme boo xam ne ñu ne ko Amath da nga bëgg a jël mairie bi loo bëgg mu ne dama bëgg Colobane bu bees loolu mooy vision li am Kaolack am Thiès am Dakar am Paris am Washington dafa war a am ci dëkk Colobane yëpp loolu mooy vision Colobane président amat Diop ñëw président Amath Diop vision boobu boo ko bëggee doxal noo koy doxalee loolu mooy ban yoon ngay jaar moo tax jàng rek moo wóor président ne yoon yi bëri na mais jàpp naa si ñett bi nekk mooy gouvernance maanaam naka la ñuy yoree li ñëpp bokk naka lañ koy sellalee ba ñëpp xam ne liñ bokk ci wàllu dépense te ñu jox ko commune bi képp ku nekk nasaw na képp ku nekk ngeer képp ku nekk gay na ku nekk muré bu nekk balal mën see gis sa bopp loolu mooy gouvernance ci li ñëpp bokk président ne su ma paree ci loolu bi may jël mooy développement économique local ñëpp xam nañ ne pour que dëkk bi mën a jëm kanam il faut que économie bi su xalik dinaa si ñëwaat léegi bi ci départ mu ne inclusion sociale et solidaire I3S maanaam dañu bëgg Colobane bi ñuy tabax du am séeréer du am naar du am woyof du am koñ ñëppay ànd. ko falee ce qui est sûr dina développé son programme dafa am ñaari éléments yu ma ci intéressé mu wax la diaspora ma am programme yu bari yoo xam ne nii lu naa leen mais amul benn yoon bu ñu tudd la diaspora la diaspora c' est 2000 milliards yoo xam ne dañ koy dugal au niveau du Sénégal chaque année donc nañu xam ne diaspora dafa nekk un pilier fort ci développement du Sénégal donc moom mu ne programme diaspora da leen ciy dugal képp koo xam ne yaa ngi nekk au niveau de la diaspora am benn investissement boo xam ne nga ko bëgg a def au niveau du de Colobane pare na en tant que maire ubbil la bunt yi nga man a investir mu jox la suuf gunge la ci les règles de l'art parce pense que loolu lu am solo la beneen élément bi mu nekk un élément fondamental mooy investissement besoin productif loolu mooy parce que bu ñuy wax développement dañuy wax développement à grande échelle développement communautaire ay ay ay ay euh, disons la santé euh, l'eau loolu lépp dafa nekk lu am solo mais ñi nga xam ne dañuy jóg nga xam ne dañuy def entrepreneuriat ñuy xool naka lañ mën a def ba état bi li nga xam ne moom la teg comme ay opportunité d'investissement ñu war a dem gunge leen ci amoon ne dinaa teg benn pôle boo xam ne bu nekk au niveau de la commune ñuy wax nit ñi ne leen financement am na fii financement am na fële nii lañ leen di accompagner pour bu ngeen bëggee dem ci le nag dafa nekk loo xam ne Euh, lu bees la ci Sénégal te ñi nga xam dañoo dëkk dakaar dëkk les grandes villes dañuy am jafe-jafe sax pour mën a xam état du Sénégal lu ñu teg donc moom mu ne en tant que maire pare na ci biir commune bi mu sam fa benn levier boo xam ne képp koo xam ne danga nga bëgg a dem vers l' investissement productif dina la gunge maintenant waa Colobane ñoom ñoo war a xam ne selewe yoom la ñu nekk buñ jaaree ci yoon bi nga xam ne ni moom mooy ànd ak Amath Diop ce qui est sûr et mooy que Colobane dina développer comme les autres communes yu nekk au niveau du Sénégal. bu fekkoon ne Amath tey ay post moo ko moo ko jugal dama naan man damay postuler mairie postuler conseil départemental su ma bay perte bi am bii mu ne ak si ñàkk keñaana mu ne man conseil départemental ñox songalu li ma doon wax li moom mooy constat damay def lobbying pour koo xam ne ne Colobane lay muy Tapha Sall nen ñaanal yàlla Adama Diallo mu gagné mairie bi su gagné mairie bi seen doom mooy nekk président conseil départemental seen doom mooy nekk maire loolu ñun moo nekkoon suñu objectif yàlla suñu objectif euh, réalisé wu en tout cas ma leen di wax ne rek doomu Colobane yëpp pare nañ maa ngi doon waxtaan ak beneen doomu Colobane esa moo may wax ne moo am na programme boo xam ne si wàllu logement sociaux waxuma leen programme des cent mille logements de mais logement sociaux laa la wax mu ne buñ amat gagné dinañ ñëw ñu def ko man banquier laa def naa vingt ans expérience ci banque muy ban banque muy banque buy développer agriculture Sénégal développer pêche développer élevage Sénégal Sénégal réew du pétrole bi moo koy développé de du gaz bi lan moo ko mën développé mooy le secteur primaire mooy bay sàmm napp ñun ñu nekk dëkk boo xam ne loolu mooy suñu activité man man nag ingénieur de agroéconomiste la sama xam-xam màcc si loolu ma expérience ci financement danaa dégg ñuy wax naan financement financement xëy na bu fekkoon ne déggaloon na ma tey du egsi fii parce que vingt ans d' expérience ku ko am si wàllu finance ko ku ko loon laaj tey doo egsi fii donc di leen ñaan ngeen jàppale moonami ami et frère Amath Diop parce que su ngeen ko jàppalee seen bopp ngeen jàppale su ngeen ko jàppale mooy moom coonoom coonoom lay doon parce que amaat tey il n'a rien à perdre Amath ma témoigné leen tey Amath banque mondiale woo dañ ko mu ne leen man mënumaa liggéey foofu parce que collaboration moo dëkk dañ maa dañ maa sas oh. banque islamique de développement woo ko li ma lay wax nii lu leer laa leen wax woo ko te ay projet loo xam ne ne salaire bi xamoo sax mu toll mu ne leen déedéet man dama signé ak sama askan te loolu laa leen bëgg doon barki démb banque africaine de def la même chose mu leen loolu soxla ma ko xam ngeen kooku kay yéen yéen a ko waroon a campagne al nekk fi di na ah ah, programme bi ñu fi tëgg tey daam jaay wax na ko ñun programme bi ñu fi tëgg du programme boo xam dañuy génne ay ay ay ay programme ay document yu ay agence def di ko plagier plagier mooy étudiants yi xam nañ li may wax ci plagier ñuy def master yëpp xam nañ li ñuy wax ci plagier moom loolu moom maa ci dàq jàng ñëpp ndax dama am logiciel anti plagiat loo ko dugalee rek ñu xala fi nga ko jëlee donc ñun ñëpp loolu xam nañ ko ñun plagié wu ñu dañoo toog ci expérience expérience bi nga xam ne bon amat am na ko d'abord en tant que agent du développement expérience bi nga xam ne ñeneen ñi ko wër ñi fi nekk au niveau fii laay jëkk a commencé au niveau local ñoom Bamol ñoom seen Mbàkke ñoom groupe enseignant yeeg ak commerçant yeeg ñi ànd ak amat yëpp xam ne am nañ ex nekku nekku question ne na ngeen nekk Dakar ñoo am expérience ñi ne fii d'abord ñooy socle bi ñoo nekk li nga xam ne fa lañ dog di lañ sukkandiku pour di ko toog di ko ñu boole koog loolu mooy équipe ñu boole kook la nga xam ne expérience yi ñu am ak yi nga xam ne banquage bu ne ku nekk fa mu nekk démb si bi wax na ko mooy banque bi Dame Ndiaye wax na ko mooy ingénieur ndox mi Amad mooy ingénieur développement man nag maay jàngalekat bi maay apprenti en soi disant professeur bi ak ñeneen ak Fallou moom wax ngeen wax na fi boppam wax expérience diaspora mooy maanaam ñooñu boo leen boolee xam nañ fu ñu jëlee xaalis te xaalis bi bu xam nañ ko buñ ko jëlee xam nañ fu ñu koy yóbbu te ñañ ko jox xam na nuñ leen leen def ba xaalis boobu du nax saay loolu mooy bu politique du question ne jël xaalis di joxe jël xaalis di joxe du politique loolu du def du programme bis buñ la wàccee xaalis ba tëj donc ça veut dire que buñ buñ la buñ mën nañ laa wàcc ñaari weer man nañ laa wàcc ñetti weer man ci ministère laa nekk xam naa li may wax ah, ah, bu buy ñëw xam naa kii war a wàcc ak ku warta wàcc ndax man maa koy bind donc ça xam nañ kuy war a wàcc boo koy wàcc boo ñu wàcc àllarba ngay jékki-jékki dégg ko ñun xam nañ li ngay wàcc léegi nag bu fekkee da nga ni programme ci loolu ko ko teg bu bu ñu wàccee ba wàccee dëkk bi tax euh, euh, tas tuskara di donc ñun moo tax programme lañ wax dañoo tàmbali il y a deux semaines ñu tàmbalee ko ak alxuraanul karim ñaan yàlla mu doon lu sedd yaakaar naa ne campagne nañu ba campagne bi jeex def nañ ko ci euh, njëkk ak teraanga ba jeex na tey kon nañu wax alhamdulilahi rabil alamin ñaan bu njëkk ga ñu ñaan foofa yàlla mun na ko kon am nañu yaakaar ne beneen ñaan ba ñu fa ñaan mooy amaat maire dana yàlla dina ko def ndax keroog bi ñuy terminer Euh, kaamil boobu doomu sëriñ taawu sëñ Abdou Karim Mbacke moo ñëw fekke ko ba ñu koy tëj imaamu imaamu Dubaay moo ñëw tëj ko ñu ñaan yàlla def jàmm ci campagne bi waaye yàlla may ñu ndam bu njëkk bi am na beneen bi noonu lay demee dimanche incha allahu nii ma téye micro dinaa ko téye di leen sant di leen gërëm di leen kàddu yi tey li siy ëpp kàddu yi cant la ndax ku gis lii ku lii doyut dara dootu la doy. léew waykat ba waxoon bu fi wayoon yemoon sax mu neex waaye du fi yem mën ak yéen ba mairie ba incha allah te ñun ku ñu xam xam ñu ci kóllëre ñii fi taxaw nii. Demba Sibé ngi nii Amsatou Ndiaye ngi taxaw Cheikh Gueye ngi taxaw Fallou ngi taxaw Jabaru Mod Dabo ngi taxaw lamin daaboo ngi taxaw ñooñu c'est symbolique pour na citer que ñooñu nga xam ne tey teew nañ man ak ñoom ñoo yaroo ndéew fii Colobane bokk suñu ay groupe comme ni ko xale yépp daan defee ñu xàmmee ñu ci lenn mooy nangoo jàng li na am kaaf euh, yaru yem bëgg suqali suñu ko ba ñu yàlla dimbalee ñun ñëpp ñu tekki également lépp lu yëngatu tey fii ci Colobane suñu groupe bii mu tuuti mu ndaw suñu loxo nga ca kon loolu fierté la te nii ñu ko àndee noonu lañu doon àndee ak Ousmane Wade mu doon suñu frère doon suñu xarit ma di ko wax nag nga xam ne le 24 janvier dafay am te 24 janvier bu ñëwee mbokk gi day des xaritoo gi day des. dëkkandoo gi day des kon na am nañu ànd ak sérénité coolu li mu bëri bëri bëri bëri nañu xam ne politique la day jeex te bëgg suqali gese la ma jàpp ne bu fekkente ne da ngaa bëgg a suqali da ngaa jàppale aw askan rek waroo coo mer waroo caa xule xuree waroo caa saaga waroo caa xeex waroo caa xaste xasuñu kenn nee nañ nag wax dëgg booy wax dëgg féeg ki nga yaakaar ki nga xam ne mi ngi koy laal waa jàppul na yaa ngi koy xas rek sa dëgg des na ah xëy na wax ci dëgg ji jib ci suñuy làmmiñ ak ñi ànd ak ñun mooy laal di àgg fu sore sore ba ñu yaakaar ne dañuy xas déedéet xas tawuñ dëgg rek la ñuy wax dëgg gi mooy dëgg gi mooy man bi may ñëw fii ci poli di politique politikuma pour lu ma am loolu mooy liy dëgg gi politikuma pour yëkkatiku politikuma pour dëgëral sama poste su ma neexee dama koy wax sama gars yi naan ma déet déet déet mais su ma neexee bàyyi. su ma bàyyee micro bi du mujj fenn. politique fayuma man politique fayuma fa ma nekk politique teguma fa. waaye nag yàlla moo dogal li muy dogal si ñun lañu jàng cib ñiy politique ñun doo nga ko fi jàng. ingénieur génie civil polytechnicien man kese la fi. ah oui man kese maa fi def quatre structures yoo xam ne yëpp ci développement la ñuy def keneen defu ko fi maa fi jaar AGETIP mhm. jaar fi CETUD mhm. jaar fi APIX jaar fi PNDL en même temps te structure yëpp di suqali ay gox loolu ci man la daje kon su ma walbatikoo ñëw ne damay jàpp ci sama gox kooku warul cee xuloo ki nga xam ne sama doomu ndey la sama xarit la dama jiitu ko si. jiitu ko si nit ñi la ma ko waxoon ca kanam premier ministre laa koy waxaat dama ne ko woon boo ñëwee fekk sa xarit ci mbir su ca doonee lu dëng danga war a jàpp ci loxoom xeex ak moom ba mu génn ca soo ko fekkee ci lu baax da war a ànd ak moom topp ci ginnaawam jàppale ko loolu laa ko waxoon te loolu laa koy continuer ñii nga xam ne ñoo jóg tey ànd ak man kii sama mag la Moustapha Sall moo ma mag fuuf moo ma ëppam njàng la lam jàng jànguma ko waaye la ma jàng jàng ko mën ta calculer euh, béton xamoo nu ñuy defee fondation xamoo nu ñuy defee tali xamoo nu ñuy euh, en tout cas nu ñuy defee puut xamoo ci dara waaye moom it man it nee naa leen jàngalekat yi may àndat sama doom bi gën a tuut mënu ma koo jàngat donc ku nekk ak la la yàlla séddee yàlla moo ñu séddee lii ñoom ñu am humilité boobu muy daam njaay mii muy ngaan Diouf muy yeneen ak yeneen muy docteurs yi muy médecins yi muy ñeneen muy doomu Colobane yi nga xam ne ku ci nekk am na loo mën am na loo xam waaye da nga boole ñëw ànd ak ñun pour ñu suqali Colobane benn équipe la ñu formé man maa nekk ci kanam maay capitaine bi waaye ñi ci nekk ci sama ginnaaw kenn ku si nekk di ko war nga ko mën doxal parce que programme la ñu teg ba ma ci siwaat programme boobu ñun ñii ñoo ko tëgg ñoo ko tëgg ci expérience bi ñu am ci bi ñuy dem ci ndaw ñi bi ñuy dem ci kër yi bi ñuy dem ci dëkk yi bi ñuy dem ci dëj yi bi ñuy dem ci ngénte yi ci la ñu xamee jafe-jafe askan wi ba fas yéene saafara jafe-jafe askan woowu kon doonut loo xam ne ñun ñun ñun dañ koo ñëw di ko tatone doomu kolobaan yi tamit kenn ku si nekk ñiy jël seen xam-xam def ci ma di leen ci sant waaye ñiy jël seen alal def ci à commencer par mes parents di leen sant tey ñun bu ñu xamee dëkk bi dëgg dëgg bu ñu xamee jafe-jafe askan wi dëgg dëgg dëgg ñoom ñii ñooy dem te loolu nag dafa am solo parce que nag ñu bëri dañuy wax un euh, maire daf da ngaa war a résider da war a résider waaye man su ma fii man maire yi mënumaa fay je suis désolé mu maire mu maire yi mënumaa fay te yaakaaruma salaire maire donc man damay liggéey te muy leer waaye yàlla dogal na ñoom ñii kenn ku si nekk am nga xam-xam am nga mën-mën sa kër nga fii sa bërëbu liggéeyukaay ngi fii kon dañ da ngeen leen di gis kon ni ngeen may gisee da ngeen ma koy continuer di gisee waaye doonuma maire boo xam ne da ngay toog ci grand place yi di toog di werante di xuloo di eh, di déedéet dañuy ut di liggéey di indi di ànd ak askan wi waaye ñoo xam ne it xel mën naa dal ci ñoom war na dafa am solo ci loolu waaye ñun dañuy bégee ba incha la le 23 janvier dañuy bégee xam nga mbir mi lan moo si des ban ko ban village ban bureau mooy gën a fal Kolo Amath Diop mbir mi leer na ba pare mbir mi leer na ba pare nañu am suñu fulla en tout cas ci kanam ci kanam li la ñu xam le 23 sereetul élection yi ñaari vote la nañ ko xam bu baax ñaari vote la vote bu njëkk bi boo ñëwee ci taabal bi taabal boobu ñetti bulletin nga fay fekk doo fa fekk suñu bulletin waaye di ngeen fa fekk bulletin wu bopp fas wi di ngeen fa fekk yeneen ñaari xur dabb ñaar yooyu def ñu leen demee ci mbañ gàtt ji def leen ci suuf mu ñu war ko defee euh, gerte caaf ak ak ak ak muraake ah ak mburu yi laxasee ko mburu yi ngeen jël euh, bopp fas bi foofa booba mooy fas bu baax booba def ko ci enveloppe bi voté deuxième taabal bi boo ñëwaatee nag ah, na ko kenn yëkkati boo ñëwaatee ci deuxième table bi lay suqali kolobaan foofa lañ ko fekk mooy nag wi mooy kayit bu bula am kayit am mbind mu weex moom ngay njëkk a que kayit boobu moo njëkk a déposé di ngeen ci fekk beneen kayit fekkaat ci euh, bopp fas wi ak beneen kayit mu nekk ñeenti kayit ci taabal booba su loolu boo jëlee ñeenti kayit yi dem ba ci mbañ gàcce bi ñett yi defal ci suuf foofu bopp fas baax baaxul nag bii mooy bu baax bi ngeen lem ko ba mu jekk def ci enveloppe bi ñëw dugal ko ci dugal fi def dugal fi def dugal fi def ba léegi ba a soppi kolobaan jigéen ñi mën a gis seen bopp projet yi nga xam ne am nañ ko ñu mën ko ci réaliser programme yi nga xam ne am nañ ko ñu man koo réaliser ndox mi baawaan courant leer jigéen ñi liggéey ndaw ñi liggéey jërëjëf sant